position politique pour lan fii ku nekk libre nga doon li nga bëgg doon ku nekk libre nga te ñu te Moustapha ak la le groupe Walfadjri li ñu wax dafa leer de. waaw du Moustapha Diop moo jël euh, engagement daal ne nangam la ñuy def de ils se sont réunis ñu toog waxtaan jël seen engagement ne nangam la ñuy def. mais journal te dañ te Fallou journal témoin waaw ki ko jiite moom la ñuy wax Mamadou Omar Ndiaye. Mm-hmm. combat démocratique yi nga xam ne presse bi doon na ko xeex tàngu sig la ministre ba ñu soog a tàmbali kooku loolu loolu da ko fee fekk da koo fekke ak Babacar Touré yàlla na ko yàlla yërëm mm-hmm. dañ ko fekkee témoin boobu démb xam nga la xam la moo tax seen journal génn ñàkk fu ñu ko imprimé ah, seen communiqué ñoom bokkuñ ci bokk dañu seen communiqué il se démarque de ce de cette journée de sans presse seen yoon nekku ci mm-hmm. ñu ko bind mu leer seen yoon nekku ci mm-hmm. Fall journée sans presse bi laa amul benn fondement boo xam ne jar na mu fi am. man waxuma ne waxu wax waxuma ne nag presse bi amuñu lu leen naqari am nañ droit am lu leen naqari bu ñu bëggee gis président de la République président de lii yoon moo ñu fexe gisante ak moom waxtaan ak ñoom ndax ñun suñu kuréel di convention des jeunes reporters dem nañ daje ak président de la République kon CDEPS bu ñu ñaan man dama wax ne dafa war a dem dajeeg moom. Ah waaye tey reporters yi bu ñu ñaanoon président de la moom président de la République daal Mm-hmm. journaliste reporter yooyu jël jël seen dogal na ñoom ñëpp grève lañ liggéey wuñ patron de presse yi ñooy génn kaas ndax reporter yi ñoo leen yor def seen lépp mm-hmm. ndax ndax reporter yi journaliste reporter yi mas nañ ci gis kenn mas nañ gis benn patron de presse boo xam ne dafa taxaw di défendre cause yoo xam ne dafa intéresse journaliste reporter yi musul am amut musul am laa wax lu si bari sax ñoom ñoo leen ko teg tamit syndicat yi sax defuñu ko man gis naa fii kuñ naan moo jëlee syndicat presse bi taxaw di nekk ci ay Hmm. Sénégal gii la xewee en deux mille vingt et un. lu leer Bamba Kassé. fii la xewee en deux mille vingt et un. Hmm. fii la xew journaliste reporter li ngay wax man mën naa ko teew li ma bëgg wax nag Fallou journaliste reporter ah. ñoo war am fulla ci seen bopp hmm. ñoo war yi ci ay patron de presse yi seen bopp la ñuy lijjanti lijjantiw ñu kenn lijjantiw ñu kenn aide à la presse bi ku ku ko daan jot journaliste yi nekk ci région yi naam kenn xamul ñaata la kenn xamul sa groupe jot joxuñu la ci ñan dërëm te am nañu ne temps Abdoulaye Wade dañ ko daan envoyé correspondant correspondant yi correspondant yi directement temps Abdoulaye Wade dañ ko daan envoyé correspondant yi peut-être ñu ñëw jënd la ci benn ordinateur defoon la ci nangam da koy liggéeyee amatul mhm. koo gisati ba doon na pare si ñooy dem jël ko directement dañ ciy def kenn da koo xam def seeni poche suñu wax takkuñu ci ay jabar wala ñu def ci leneen mhm. après ñun ñu nekk ci dund ci benn précarité bu metti boobu chaque jour ñuy daw ak a daan te ñun ñooy alimenter les journaux ñun ñooy alimenter les radios di alimenter les télé ñun suñu jafe-jafe yi kenn jéem ko lijjanti kenn xoolu ko ñoom problème mu xaalis war a fay impôt fayuñu ko waaye gis président de koo gis dañuy engagé ci ay combat ñu leen ciy fekk mooy dëgg kenn waru leen ci patron de yoo xam ne xamoo leen ci beneen fonction te ñoom ñoo fi yor oto ñoo fi mayee suuf bu ñu waxee su euh, ay suuf yoo xam ne ñu ngi koy tudd ci réew mi ñu seeni tur nekk ca loolu tamit lu lu doy waar la léegi loolu lépp nag ñun ñu koy gis ni ko xame man ma xam ko noonu la ko journaliste yëpp xamee mais pourquoi kon ñun ñu nangu ñu ñuy engagé seen combat yu ñàkk fayda yi. leer. lu tax ñuy nangu ñu man bu bu fekk bu fekkoonte ne man ci yenn groupe de la laa man danañ réunir personnel biy liggéey ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi yor média bi liggéey journaux bu génn on va réunir bu fekkente ne moom nee day fay télé wala day fay rajo on va faire un communiqué ñu ne kii su muy def suñu yoon nekku ci. Hmm. suñu yoon ñu xam ne patron de presse moo fay ay bagages moo xam suñu yoon nekku ci. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne ñu ubbi seen rajo ak seen télé mel ni maanaam patron de presse liñ def dëgg la def defuñu dëgg de mm-hmm. sëñ bi defuñu dëgg xaalis journaliste yi lañ dagg def seen i poos mm-hmm. xaalis journaliste yi lañ dagg def seen i poos président Macky Sall naan baal na leen ko ñaar dañoo baaloon mooy kan ba leen di baal mooy ba leen di baal wala ñi nga xam ne doo bokkuñu secteur presse dafay impôt presse da leen a gën léegi président Macky Sall bu baalee presse bi ñi nga xam ne bokkuñu secteur presse baalu leen loolu injustice injustice totale. wala Sénégal yi Sénégal yi pour ñu yem au même pied. Ah, bu bu yi taxawee ne milieu bu sensible la. mooy milieu bu sensible. ah loolu la loolu la métier nañ di ko liggéey loolu la ñuy yàgg ma nga naan médecin yi gën a yor milieu bu sensible clinique yi nag. Hmm. wala fay ñu impôt. leer. clinique yi sensible. Hmm. xanaa bakkoon doomu aadama moo for gën a foor lépp ñu koy saytu nekk dans le nag te bu ñu waree fay impôt fay ko. Hmm. coow loolu dong la coow la. dañuy jàpp lii la tamit. moom mais président wax na ko moo ko wax bi fa convention des jeunes reporters demee mu ne man kenn du chantage parce que xaw ma nu ñuy chantage kon moom il a bien compris que compris na gars yi ay chantage la nekk. Hmm. il bien compris que mais Fallou dañu fàtte leen régime actuel bi bu doon presse dong la yaakaar presse bii la yaakaar ba si fi loolu mooy dëgg est-ce que seen grève bi kon bu fekkee ne président bi kenn du ko chantage te lii dañ koy jàppee euh, wàllum chantage est-ce que kon seen lii dina am dina am benn effet boo xam ne. dina ko def tamit man de jotuma ne dina am benn effet. ne dina am benn effet. Hmm. ndax ñu ko seqal laa xam. ñu ko seqal laa xam. Hmm. mais ñoom impôt nee nañ fay leen sëñ bi nañu waaxu ba ci impôt demee. ña ña yor loolu ñu waxtaan ak ñoom lañ bëgg nangam nangam ñu xam ko liñ ñu wax leen ko amu fi am na fi. am na ñu koy def ñoo la gën a xam ne am na ñu koy def. non impôt moom borom euh, kii ni ñu ko waxee directeur de société day dañ fay dem. di waxtaan ak ñoom di fexe ñu leen di li nga xam ne moom la ñu war a fay. waaw yi yàgg nañ koo xam ak ñoom ay entreprise lañ ay lañ fàllu ñoo kii lig ñi nga xam ne liggéey ci bâtiment liggéey ci leneen ñoo yem képp dañuy def ay chiffre d'affaires xaalis bu bëri la ñuy wax moom moom lañu am. pour pourquoi ñu ciblé rek. ne président la ñu wax mais moom fi ne sama montre bii mën naa garanti kër. waaw. ci moment boo xam ne sa correspondant yi amuñu oto bu ñu dugg. ah oui. loolu hmm. eh, mooy lan man li ma ci naqari mooy journaliste yi leen di jàppale man loolu moo ma ci naqari bu ma amee lu ma ci metti loolu dong la journaliste yi leen di jàppale. bu fekkoon ne combat patron de presse. ah ko engagé sa sa sa sa organe yëpp ci sa euh, ci sa ay position politique nag boo taxawee. wax nañ ko ci ay position politique. ah gis nañ ko fii. seen TV googu xam nañ li li fa nekk tamit. loolu loolu mooy yëf la. léegi la ko ñu bari di soog a nangu mais. loolu mooy yëf la lu tax ñuy engagé ñëpp ci seen ci seen combat politique journaliste bu ko journaliste bu ko nangu daa fekk mu neex la rek daa fekk mu neex la mais fii journaliste dañu libre de seen liggéey nañ ko war a defee tout temps respectant rek la ligne éditoriale d'un média mais respecter ligne éditoriale bokkut ak sa sa sa patron nekk ci benn combat politique ngay toog kee plateau xam ne kooku rek ngay défendre boo ku ñu de ñaari mbir xaaju ñu bay jigee sax. foo foo tuddee ñaari dugal ci trop. waa léegi gis nga problème presse bi romb na yii ñuy wax nii. fi ñaata journaliste ñoo fiy liggéey amuñu contrat fa ñu liggéey def nañ fa ay at. bari na bari na. amuñu benn contrat fa ñu liggéey def nañ fa ay at. Mhm. am na fi ñoo xam ne yaa ngi gis ñuy daw ci ay médias di liggéey di xëy ak wàcc ñu leen dara. liñ liñ yaakaar moom mooy per diem yi ñu jot ci mbedd mi moo tax du fi gaaw a jugee de. per diem. per diem yii ñuy dem ci manifestation yi ñu la koy jox. du gaaw a jugee ndax koy jox dañ ko soxla kenn fayu dara. Mhm. loolu mooy dëgg wax ni faaw ñu ci digg bi. ñu leer moo tax du fi gaaw a juge mhm. man na bu ma sañoon dañ koy supprimer waaye du fi gaaw a jugee de. Ah parce que ñi ñu koy jox lañ ko soxla. Mhm. Euh, bu ma ñëwee ci li nga xam ne ñoom taxawal nañ ciblé ko te mënoon dem ci li nga xam ne ñoom ñooy waa impôt mën a waxtaan ñoom ñoom ñu ne forcément rek président la ñu war a gis loolu tamit. Euh, man sax bëgg na maa gis président man loolu bañu ma mais bëgg na maa gis président gisuma ko. léegi li tax li tax <laughs> ñu ne forcément président la ñu war a gis. wala ñu war a gis li jeune reporter gis président ba pare. non man c'est <laughs> ah loolu tamit day raw na xam ne li jeune mais moo xam agenda am ñun xamuñu. Hmm. xamuñu. man xaw ma la moo tax président rapide ba a jotee foo xam yow ah, président patron mënoo faa egg tamit jafe-jafe yi ñoo koy dund Fall yi hmm. dëgg jeune reporter yi ñoo koy dund gars yi dañuy dóor ay ñoo koy noyyi gars yi ñooy dox ci naaj yi ñooy gàllu caméra yi ñooy yor micro yi daw di topp ci nit ñi waaw barke gis nga RTS beneen télé bu vingt heures jotee nga taal seetaan journal buy daw éléments yi neex santal reporter yi ñoo wàcc ci terrain bi de santal reporter yi Mhm. Fall suñu genre gi dañuy xëy topp un ministre laa wax. waaw donc a heures à dix neuf heures leer. ñu ko topp fu mu nekk ña nga fa. des fois da ngay bëgg sa nag ah doo def benn interview ñu mën a am xam dara dem mais danaan damay xaar ba pare. yow tu es nga toog xaar ko ba mu pare mu def interview am nga am information bi nga war a am traité ko envoyé ko rédaction. Mhm. ci jamono boobu rédaction joxuñu la oto li ngay passé dem joxuñu la ko. Mhm. yow yaay débrouiller ci say moyens journaliste yi dund loolu nag nekk ci ay jafe-jafe ba pare ñuy dagg seen salaire war ko dugal ci impôt dugaluñ ko fa def ko seen i poste ñooñu waruñu leen engagé ci combat bii loolu mooy la triste réalité ah man de nekkuma ci. Hmm. man bokkuma ci yooyu de te d'accord ma kenn da ci dugg dañu war a fay mënu buñ ma bu fekkente ne fay gi métti na ci ñoom. li li nga xam ne pour jeexal li nga xam ne ñoom ñi ngi koy xeex nii ñoom patron de presse yi dafay concerner journaliste yi tamit. parce parce que parce que. bu fekkee ne ñoom mënatuñoo fay wala euh, dem nañ en faillite ba seen entreprise yooyu daanu tamit journaliste bi ci doon liggéey dina ci gis. Euh, Fall Fall li tax mënatuñoo fay lan la. ah ñoom loolu lañ wax ne nañ. awo dama ne euh, li tax mënatuñoo fay lan la. amatuñ chiffre d'affaires gañu gañe wutuñ xaalis. Fall coowal impo li ah. nga ci waa 2STV. non dégguñu leen ñoom wax nañ ne ñoom amee luñ sax état impôt la ñu wax. El Hadj nan la def ba amee lu état ah fay ko ci moment bi mu jotee. moom lan la yor. organe la yor comme ñoom. est que ab xaalis dëkk bi. ah <laughs> loolu nag moom. ñi yenn organe yi nga xam ñooy bombé la porte chaque jour gis nañ fi organe boo xam ne doon na ak waa ci coupe du bi passé. Hmm. n'est-ce pas amul. ITV kooku ñàkk na xaalis. wala da ngaa amoon wala am fenn fu doon jëlee. Fall. gaa yi état régime bi fi jógee. la mu leen tàmbaloon moom moo jeex. loolu mooy dëgg de ñun xam nañ li fi am de. mais buñ toogee ñu bari fayee kootuñ ay weer seen ay liggéeykat taxaw naan man fayeeku ma jotaguma sama xaalis jotaguma sama salaire sans yooyu noonu tamit loolu. waaw léegi xanaa loolu est-ce que doo a grève liggéeykat yooyu a grève parce que ñi ñi am na loolu boo ko génnee ci régime bi li mu fi def day jeex. am na fi ñoo xam ne loolu boo ko génnee ci li fi régime bi def un mois ci des waaw kon jafe-jafe yi presse di presse di dund tey jii. Hmm. jiitu na gouvernement bi fi nekk. waaw. Hmm. xëy na nag dañ daan jële feneen xaalis foo xam ne bu ñëwee ñu def ko seen i poste ñoom. Hmm. dañ daan jëlee feneen xaalis foo xam journaliste yi ñoo waroon a grève toog ñetti weer fayuñu la ñoom ñoo waroon a xëy seen seen i loxo ne liggéeyuñu. ñoom ñoo ko waroon a def journaliste yi journaliste yi ñoo ko waroon a def laa waaye nag. léegi nag ñun moom dañoo ñàkk fayda ñun dañoo ñàkk fayda am na ci ñoo xam ne xëy na Ousmane Sonko neexu neexu leen loolu mooy tax euh, combat boo xam ne leer na li arrangé wu régime bi ñu a xam lan la ñuy jariñ ci kanam li ci kanam nag rawuti bët combat bii kenn nekkaluñ fi mhm. ñu di koy def ko di ko di ko dunde ak seenum njaboot oto yu baax bon nekkuñu benn condition bu baax loolu mooy dëgg journaliste yi nekkuñu ci benn condition bu baax ñoom ñu dagg impôt journaliste yi def ko seen i poste lekk ko ñëw ba ren ji woote ay journée sans presse kenn waru ñu xam fu ñu jëm loolu mooy dëgg. Hmm. jërëjëf Birane sant xam naa bëggoon na maa ñëw sax ci mbirum. <laughs> Ah, xam nga lu war a euh, <laughs> yi amoon ci suuf si fan yi mais ñëwaat parce que xam nga euh, màggal gi liggéey bi. am na couverture yi ñuy xaar ñu war daw léegi. te mm. rafetlu bu baax a baax sa liggéey nag ñu ngi jégalu kàddu yi bu fekkee am na ci xam ne na kenn ñu ngi koy tuub nag jubluwuñu ko ci waaye daal nañ gën a jox journaliste yi seen kër jërëjëf